xoolal xoolal match bi ni dem waaw maanaam kenn wanewu ci xar senegal Sénégal même étranger yooyu buñ delloo waaw naa Ousmane Sonko Ousmane Sonko une minute ñëpp war ñu naan libéré Ousmane Sonko libéré waaw <laughs> na ko xam nga doon bañ di ko tëj ngir bañ benn activité Ousmane Sonko mun tëgg ci kaso waaw stade ba ñaata personne lay jël ay soixante nangam mille place soixante nangam ñëpp àndandoo presque di wax Ousmane Sonko libéré Ousmane Sonko dama mën a Ousmane xew réew mi tey ñu ngi dalal Serigne Saliou ñaŋ borom Tanim TV ñu ngi ko dalal tey fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xam ne moom mooy xew ci réew mi jamono bu nekk dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu dugg ci biir waxtaan bi bisimilah sëñ Saliou. Mhm. jërëjëf mbokk yi seetaan IYAT TV sëñ Fallou maa ngi lay nuyu bu baax baax di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñu ngi seetaan IYAT TV. di am mbégte lool di eh, ñëw seq ak yéen hmm. jërëjëf eh, sëñ Saaliw xam naa ne balaa ñoo gën a guddal rek dañuy eh, njëkkee li nga xam ne moom moo xew fan yi Amadou Ba tabb nañ ko mu war a nekk ki nga xam ne moom mooy wuutu Macky sàll ci bopp APR waaye nekk seen candidat tamit ginnaaw diggante boo xam ne waaj nañ fi ay waajtaay yu yàgg jàpp nañ fi dat ne dañuy tabb dàq ko ñaari yoon bi yoon ñu ñëw ñu fal ki nga xam ne moom mooy Amadou Ba ndaka nga gisee loolu nga xam ne Macky Sall def na ko. waaw waaw loolu de xaw nañ cee am tuuti xalaat yu kii ndax Amadou Ba boo xoolee génn na ci gouvernement bi lu yàgg. Hmm. bi mu ci génnee dafa toog rek neutre noonu di liggéey liggéey suufam. doo hmm. yor ay ci étape président Macky Sall. day wane ne daanaka Macky sàll ëppale wu ci ay membres yu nekk ci moom yoo xam ñu ngi ci biir gouvernement bi aussi moom tamit am na loo xamante ni moom Macky sàll ñu ngi ci doon. Mm. carte wala ñu ngi ci doon suyee. ndax bu leen fàtte ne amatu Ba bi Abdoulaye Macky sàll di jër réew mi. Mm. xam ngeen ne boobu yu bari daf koo soxla woon soxla woon na xaalis soxla yëpp te Amadou Ba moom naka jekk situation baaxoon na ma nga nekkoon impôt domaine. Euh, ñàkkut lu mu ko ji loo xamante ni moom. xam naa ne ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax a baax mm-hmm. biñ demee ba état bi toog Amadou Ba dafa toog rek ne ci di ko seetaan seetaan ba gis nga dernier moment bi nga xam ne dem nan ba ne dañ koy def premier ministre bi ñu ko def premier ministre tamit mm-hmm. du woon moo doonoon suwaa bi mais dernier moment ci bëccëg bi ci ci suba gi la ko mag Sall téléphone ne ko daf lay def da koy def premier ministre mm-hmm. am na nañu wax sax ne Idriss Seck moo naroon a nekk premier ministre après Idriss Seck moo ko wax ne ko jox ko ko jox ko Amadou Ba waaw jox ko Amadou Ba ginnaaw bi ci li nu nettali xañ na nag du lu leer lool mais nag hmm. politique da ngay dégg ay source rek di analyser boole analyse loolu nag mais ku ne xam na ne dernier ma la Macky Sall nag loolu dafa pare ne lu mu ko def ci eh, état am ah. boo bi mu ko campagne loo mu doon dem fi nga xam ne moo di eh, def doon def li nga xam ne moo di Euh, campagnal ko li nga xam ne moo di député yi ak yooyu mu waroon ko teg assemblée mhm. Mimi Touré moo ko nettali nee na dem na ba quinze minutes mu envoyé ko message naa laa woo mu ne ko waaw mu ko mu ne ko décision bi ma jëloon pour def la assemblée te du la ko mën a def du ma la ko a def ci assemblée bi ci biir assemblée loolu moom mhm. ñëpp ko mu ko mi mu waxee sax da ngay da ngay mujj jaaxle moom waaw waaw waaw waaw mhm. Euh, ci biir suwaawu Amadou Ba boobu yaa ngi wax ne ba ci ba ci côté li nga xam ne moom mooy première ministre ba hmm. nga wax ne Idriss Seck la ko bëggoon def mais euh, bu ñu gisee ni nga xam ne noonu lay déroulé entre Macky Sall ak Amadou Ba donte kam Amadou Ba waxut euh, moom dafa toog fi mu toog rek mais dafa mel ni daal choix yi ñu ci bari ñu ngi wax ne neexut Macky Sall maanaam bu bu amoon li ko gënal keneen la fay tabb ndaka nga gisee mbir moom ci ñi ci ñi jàpp loolu nga bokk wala hmm. ñii ne Macky Sall bu ko kiyoon waaw bu bu kiyoon keneen lay teg waaw waaw man nag bind naa ne sama analyse boobu am na ñu mag sàll a wóolu ci amadu Ba waaw ku ci mel ni ministre intérieur bi Antoine Diome waaw Antoine Diome waaw xañ ko koo def xañ na mm-hmm. ku ci mel ni Abdoulaye Dione waaw ku ci mel ni Mamadou Mame mi nekk assemblée Mamadou Mame Diop ñooñu moom jàpp naa ni leen mag Sall wóoloo gëw ma wóoloo na ko kenn mm-hmm. wóoloo na ko kenn xëy na nag culture bi ak euh, profil bi Amadou Ba am. ak mm-hmm. fi nu jaar tey moom Amadou dañ doon def li nga xam ne mooy. Mm-hmm. Euh, ku ci nekk di xaar sa morom. Amadou bëggoon na choix bi. mais gisu ko defut benn réaction buy wane ne bëgg na. Mm-hmm. mais ku nekk xam na ne bëgg na. ndax bi ñu ko joxee rek wane na ne bëgg na. te Amadou gis nga fi mu doon gasal kam président Macky Sall nee na président Macky Sall bi ko gaayikee mu ne leen man Macky Sall bu fi doon toog fii ba deux mille trente sax. amul problème ba loolu du du kii ndax moom heure boobu sax ba wut dina fekk mu aase waaw waaye ànd ak loolu lépp day wane ne bëgguma mag hmm. sàll nag du xam fu mu ko jaar moo tax Macky Sall bi jox ko te wax naa ci sama chronique moo xam ne tànn bi président Macky Sall tànn ku mel ne euh, ab ab a Diallo waaw moom ku nekk xam na ne moo kii jubóowuñu jubóowuñu Amadou Ba hmm. ba ci gouvernement am fi mu toll nanguwu cee dugg waaw Idriss Seck xam nga ne du lii moo ko yóbbu woon ca Macky Sall maanaam dem rek ñëwaat ne day régler situation réew mi génnaat demaat dégg nga loolu yóbbuwu ko fa woon. am na leneen lu ko yóbbu woon soit Macky saala jox ko réew mi xam nga fu mu ko doon jaare nag mais loolu moom moo doonoon ah. bi ki nga xam ne moo di Aliou Nguy Ndiaye. Ah. ak ki nga xam ne moo di e, bun jonn mi ak ñan fa yabaloon ci Moustapha Diakhaté Moustapha Niass. Hmm. da ngay yëg ne tànn dafa daw xaw a garaaw tànn. Hmm. li ma doon wax ne benn góor nee na ma. soo dikkoon di ngoro benn soxna hmm. bi ngoro am ñu la wax ne la mbokk yi ne la may ma tuuti ñu génn ñu daje ci seenam néeg nee na bi ñu mënoo ci néeg bi ñu génnee ne la sëñ bi mën nga noo jéggal waaw nee na boo mënoon a taal néeg bi taal ko ci seen kaw ndax <laughs> parce que li nu wax gërëm loo wunu say jikko am na lun gërëm lun rafet nu wut ci yow moo tax soxna si hmm. Macky Sall nag wan ne noonu ñii ma tànnul nag kon rafetluwuma ci ñoom ne mën na noo yor réew mi loolu moom sénégalais yi laay ciy tiré lu attention Mm. muy Aliou Ngouille Ndiaye muy eh, Abdoulaye Daouda Diallo muy ñooñu nga xam ne mag Sall tànnu leen ñooñu ñëpp nag ba ak ki mu tànn mooy wane ne ñooñu ñëpp kenn waru leen wooteel ci élection yi di ñëw. ah soo soo boo xam ne sañu koo def. waaw sañu koo bañ a def. waaw defu ko ci premier ministre ba. Mm. am na ñeneen ñu posturé woon ñu jàppoon ne dinañ ko def. Mm-hmm. mu jéggi leen fi sàppe leen ñëpp dem jël Amadou ba ñu ñëwaat ci présidentielle yi. lu mat ay six candidats mu sappe leen ñoom ñëpp dalaat ci Amadou Ba loolu tamit ñoo wax ne Amadou Ba euh, ñee ñee ñee gën nañ ko placé wu pour mën toog foofu Amadou Ba su fekkoon président Macky Sall da ko yéene réew mi pour jox ko waaw élection député yi ci la koy def mu def campagne est-ce que amul fu mu fu mu fu mu jàpp Macky Sall foo xam ne tamit waaw loolu laa la wax dama la ne yaa ngi fàttaliku ne bi président Macky Sall di dem Macky Sall dafa waxoon ñëpp dañoo jàpp ne Macky Sall yorut xaalis. Ah. ba président mag sàll bi mu toogee la déclaré ne yor na trois euh, set milliards. mooy ah. mooy kii hmm. mooy nu tuddati. Ah. mooy li mu yore ci xaalis laa bëgg a wax. waaw li mu wax ne Abdoulaye Wade moo ko may. waaw waaw yooyu te loolu moo doon kii hmm. te booba gars yi fu ku nekk la ko xaalis doon jóge te booba. seen hmm. campagne bi ku nekk xam na ne booba. Amadou Ba mi jàpp na. ba léegi yaa ngi dégg na am milliardaire la. waaw milliardaire la fu mu jëlee xaalis. ah te moom bi muy dikk moom moom amul woon problème mu. Hmm. xaalis waaye problème mu état mu mag sàll moo ko def moom. Hmm. lii xam état dugg ci état nangam ak. waaw ah. lu ko Macky Sall joxoon. ministre bi nu mu tuddati affaires ah. étrangères wala beneen. kii bi la ko affaires étrangères Sénégal jox na ko ministre de finance tamit. waaw waaw ak finance. finance ku mu koy jox ku nu amul ci yow confiance ku xamul xaalis dinañ ko ko jox ah. benn waaye bu jóge fële xiif dinañ ko jox ministre boobu ministre boobu lu mu ko beneen bi ci desaat bi mu ko joxaati tamit pour génne ko woon réew mi la pour amatul ah. ko jegee woon ah. am na xaalis mi ngi am compétence bi mu génne ko réew mi hmm. ñuy wax naan day am influence ci biir presse bi ndax ñu ci bari dañ koy eh, défendre bi dama moom Cheikh Yérim Seck wax na ci lu leer Cheikh Yérim nee na hmm. wax na ko Maïmouna Ndour nee na ko yow te booba mooy bi euh, te li lay wan ne la président Macky Sall kenn xamut ay kéem hmm. bi ñuy dem euh, mairie Dakar bi waaw Diop dafa doon candidat waaw Mame Mbaye Niang doon candidat hmm. euh, loolu nag ñi mu doon demloo candidat am na ñu wax nag Cheikh Bara Ndiaye wax na ko nee na ñi doon demloo ñëpp ñu ñu xaalis la mu wax leen ne leen dem leen campagne waaw xam ne joxu leen benn dërëm hmm. benn dërëm la leen joxu jox ko Diop Sarr ndax ku ci nekk ñu ngi lay toppee. Ah, financé financé wut Diouf moom mi nga xam ne moom la tànn muy kan candidat officiel am. waa kooku du ko financé tamit dox ko yokk ko. doole waaye moo yoroon bi mu koy kii da koo dàq booba de. waaw bi ñàkkee. waaw da ko <laughs> te boobu moo yoroon ministre santé bi. Hmm. te yaa ngi dégg ñu ne loolu problème nu mu tuddati of naag lu mu wax ne ñoo ñaata la lekk ci xaalis. bari na moom xaalis bu bari. Diouf Sarr fi ñu toll mi ngi def tiwit ne. Ah. ànd naag euh, Amadou Ba mais ah. loolu sañu ko def ndax parce que ñaar. te loolu ànd bu garaaw la ànd boobu mooy bu ñu demee euh, ci biir même ci kaw gi mën naa ànd ak moom ci biir ga woote sanction la ñuy def rek. ñu ci bari jàppoon nañ ni. xanaa mu ne président bu bu jëloon Ousmane Sonko ne ko yaay sama sax bu muy tuggaañee. lu wér. nit ñi dafay am yoo xamante ni dañ cee découragé ba nga xam ne te Macky Sall président Macky Sall immense am dafay yàgg ci état bi. 2000 hmm. ba léegi daanaka mën nga ne ñetti at dong la fi toog. nekkul ci état. état bu Abdoulaye Wade lu nekk nekk na ko ci ba nekk premier ministre ba nekk li nga xam ne moo di euh, fii nu mu tuddati moo nekkoon assemblée ah, fa la ko jëlee nekkoon fi directeur campagne am nekk fi léppam waaw ah. kooku sëñ bi daanaka dafa yàgg ci état bi moo tax boo gisee nit ñi hmm. xaw a bëgg mu mu mu changement am loolu mu loolu bokk na ci li fi am hmm. beneen bi ci desaati tamit gis nga ni réew mi di doxee euh, bu fekkee ne démb rek mam booy jaaw ah. bërki dem rek la génn maanaam di la def conférence de presse deux heures ñu dàpp ko. waaw ah ku bokkul ci parti ba nag defoo fa dara moom. waaye ku bokkul ci parti. Ah. boo xamante ni bokkoo ci. Ah. Euh, te amut benn choix pour am choix pour tànn maanaam ñoom ñëpp dañoo bëgg d'accord. Hmm. ci choix président Macky Sall. waaw ah. choix bi ñu war a Macky Sall d'accord choix bi nu war a d'accord mooy Amadou Ba moo jiite APR loolu choix ñëpp d'accord ci. Ah. te soit moo yaa war a yore réew mi. waaw ah. loolu soit nit ñëpp la. loolu du président Macky Sall ñëpp am xalaat ne. kii hmm. doyu leen wala kii moo leen ci doon sowaam sax hmm. moom sowaam maa leen tànnal kii moo nekk ci bopp APR loolu mooy sowaam mais hmm. ki fi war a nekk ci réew maa leen ko tànnal loolu réew du du sowaam président Macky Sall tey ñi nga xam ne ay kandidaa lañ yoo xam ne génn nañ ku ci mel ne Aly Ngouille Ndiaye Abdoulaye Daouda Diallo ay Mame Boye ñoo ñooñu nga xam ne génn nañu officiellement ne dañuy samp seen ndënd am na ñoo xam ne dañuy wax ne euh, candidat lañ yoo xam ne indirectement mhm. euh, euh, candidat yu Macky Sall lañ indirectement maanaam li ñuy def sanru mel ni da nga ne demal kii ma ci sama wutur yéen yeneen yéen ñi ci yeneen électorat yi waaw xam nga ñoom jéem a nax yi xam yeewoo ah. ak fi ñu toll ah. bu ñu bëggee di leen nax Aliou Ngouille Ndiaye Mm. Aliou moom benn choix laa xam ne bu nekk directeur woon bu nekk loo xamante ni lu mu lu mu gëm la woon. waaw mooy troisième mandat mu gëmul woon na Macky Sall mu d'accord ci Macky Sall def ko. Ah. loolu moom naka jekk waxoon noonu te man ba jonni tey. dama ah. jàpp ne choix boobu la amoon. waaw euh, loolu moo nekk vérité ci moom dëggam. Mm. Euh, kii nii nu mu tuddati. Euh, Abdoulaye Daouda Diallo ah, déedéet Diallo Diallo Mame Boye Diallo Mame Boye Diallo. Mm. Mame Boye Diallo bi ni maire yi dajee fële ci dakaar daje ci kii boobu. moom moo jël kàddu ci turu ñëpp na képp ku d'accord ci président bi def troisième mandat génneel salle bi. waaw loolu da ko waxee yaakaar naa wax dégg nga ko. noonu mhm. la ko waxee léegi noo mën a dikkawaat moom ñoom bu fekkee ba léegi loolu Sénégal yi sax loolu lañ war a njort rek ba kere ñuy gis leen xam naa loolu lépp mën naa bañ a nekk dëgg sax vérité. waaw te Sénégal yi nañ bàyyi xel lool ne. Mhm. dañ leen yóbbu pour tasaare leen pour deuxième tour. ñu mën a feebu leen ni ñu. ñu mën a dajewaat la Ousmane Sonko waxoon ne képp ku dul ak wallu xamal ne mag Sall ngay liggéeyal xam nga loolu la leen waxoon te boobu te te waaye fi toll képp koo xamante ni ci opposition bi nga bokk hmm. opposition bi walaa la wax waaw ba mu des Ousmane songo ba mu des piir ba mu des Mimi Touré ah. ba mu des ki ñuy wax Moussa Diop hmm. maanaam président Macky Sall ngay liggéeyal ah. ba ci Idrissa Seck Khalifa Sall pourtant am na ñu wax ne Mimi Touré Mimi Touré ci ñi euh, ñi candidat indirectement yi la bokk ah dee moom góomu ko moom Mimi ah. vraiment ku dégg ku dégg ni muy waxee ak ku xam li nekk ci moom ci rigel li ah. nga xam ne lu mu bàyyi mais bu fekkoon loolu la mais du diggoon nañ ko ay ay poste yu bëri mais daa laal mii ah, mi président Macky Sall dane ko mën naa laa joxaat yeneen poste te mii mi li lay wan nit ki mii mi la mu doon xeex ba jonni tey bi mu génn moom la xeex dana woon troisième mandat du am mais troisième mandat mu jot am waa amul te moom looloo ko naqay waa loolu ko naqaram jeex na xanaa déet naqaram jeewul ah. léegi troisième mandat du am Ah. mais noonu nan nu réglé problème mii mi nee ko hmm. mille milliards yi ñu wax ne nangam la ñi cour de compte jàpp ah. ñi nangam jàpp hmm. mais Amadou Ba bi ñu koy fal lu ñu waxoon dañ ne président nu mu tuddati dañ def ngir ñu régler situation ndaw bi ah. ak eh, prix bu seer bi ndax loolu dara réglé na ci de combat waaw de combat de combat bu koo xam gouvernement de combat <laughs> te beneen bi ci dasa sëñ Fall hmm. président Macky Sall dana woon su ma la waxee ne du ma dem su ma ne wii léegi wax na ko ndax li ci des kon dañuy liggéey fi mu toll wane na ne liggéeyatu démission yaa ngi commencé nag ah waaw kon liggéey kenn xamul kenn xamul ndax léegi ak ak tamit sëñ Fallou noo mën a def pour six mois des nga ne diw sàngam yaa may jiite présidentielle di leen ko préparé ci loolu président Macky Sall bi mu bëgg réew mi toog na ci ñaare nu mu tuddee ci trois mois mu ne day jël réew mi hmm. ñaata at la def campagne xam ne ne am réew kenn mënu ko jël ci six mois léegi soit biñ soit Amadou Amadou Ba Mimi Touré bi ngay wax léegi moom mi ngi wax ne Amadou Ba nekkul meilleur profil tey pour ñu xam kan mooy Amadou Ba nañ organiser débat bo débat télévision moom ak Amadou Ba boobaa dinañ xam ki Macky Sall tànn kan la. waaye suñu Amadou yow déggal suñu Fall Mimi Touré ku am expérience. waaw ku am xalaat yu fóot la ak xam-xam. am force boo xam ne góor ñu bari sax amuñu. waaw du waa Karim Wade yi Ablaye dañ ko doon wax bi ñu ko waxee coalition ñu ne duñ bokk ndax parce moo tëjoon Karim Wade mu ne sa Assimi mais bi ma koy def man dañ ko doon def la président Macky Sall moo ma ko doon def la ah wax na dëgg ah dañ ko doon def la beneen bi ci des Mimi mm-hmm. euh, ku am kii la ndax parce que wax na Amadou Ba ci assemblée ne ko Amadou maa ngi yow ñoo àndoon di bañ troisième mandat waaw loolu wax na ko de pourtant Amadou daa daw naa man loolu du ko gi Amadou Ba Amadou jegewut askan wi. Hmm. Amadou mënta campagnal boppam. ah mais am na influence tamit. influence man influence presse li li koy li koy wone mooy bi ñu bi ñu bi ñu ko tabbee ca APR bu doon euh, téeméer la juróom ñeen fukki bi topp nañ ci ginnaawam. topp ci ginnaawam da ci am ñoo xamante ni dañoo am problème ay ay de compte ay problème yu am yoo xamante ni bu ñu deful noonu ñu nabat seen digg. dafa ah. nga ne Diop Sarr mën na taxaw fële ne du ma dem. te woon ministre santé bi. te bari wax ne bokk na ñu ko yàqal. ah waaw ah, léegi moom mën ah. naa mën naa ne du ma dem maam bay ña ngi ñeme naa taxawaat fee naa du Amadou Ba du ma ci ànd du moo ko hmm. opposé woon kii Diop Sarr ah. lu tax opposé wut kii Amadou Ba du ko opposé léegi ñoom ñooñu ñëpp kenn dañ daa nangoo taxaw te kii ñi ko fi ñi ko fi wax mooy ñi xaw a set tuuti hmm. te Aliou Ngouille Ndiaye mi fi mu toll Aliou Ngouille Ndiaye moo yore jiw yi baykat yi nee nañ benn jiw bi suñu ko engrais yi daanaka ci la kaa bi mu dikkee fii di Macky di ko jaayloo carte yi fi Mbàkke lu nu wax xale yi wax xale yi dañoo wax ne ay nit boppam dong la recevoir. Hmm. beneen bi ci des Touba fiise bi ñu ci bari envoyé na leen ñu dem fële nu mu tuddati. Jolof ñu dem Jolof. Hmm. loolu defe naa mën na ko may dara ñaata maire lan waa dix neuf maire yoo xamante ni ñu ngi nekkoon ci ànd ak moom. Hmm. léegi seize maire yëpp dem dem na waaw ah. ànd na noo xaw ma kii. waaye Amadou Ba déedéet ka ca des. Abdoulaye Daouda Diallo. déedéet am na beneen waaye sax kii kii waa ji seen ka nekk foofu waa ji ma fàtte waaye rek ànd lu mu mën rek moom perte na ñoo ñëpp. waaw léegi eh, maanaam Amadou Ba nu mu tuddati. kii Aliou Ngouye eh, Aliou lan la mën a gañe fii ci Touba te Touba moo waroon a doon meilleur kii am. mbas mi amee waa Touba amatu ak kii nan lan doon jëflante. di leen mel ni ku yor doom yoo xamante ni toujours da ngay ñi nekk ci sareet yi bul tëkkul dinaa leen fa fekk dinaa leen def nangam. loolu moom bari na ñu ñu ko ci mere ba léegi. waaw mer moom da ngaa def ne génn ci génn ni <laughs> da ngaa def léegi taw beneen bi ci desaat Mm-hmm. tey Mamadou nu mu tëddati waa ji Jaawo. Mm-hmm. Ah, Mamboy ah, Mamboy Jaawo. waaw Mamboy Jaawo démb démb te stade ba ne day dugg jënd ay biyam ñu kii ko. mais loolu est-ce que du scénario rek. waaw scénario boobu laa ko bëgg laa ko bëgg tegal rek. wan ko ne ko scénario yu mel noonu jaaroon na fi wala yu ko gën a garaaw. waaw pourtant loolu bi ñu koy def Ousmane Sonko pourtant moom mi ngi fi woon. mi ngi fi woon bi ñu def bi ñuy bi muy def nemmeeku tur Mbour. waaw ñu jàpp ko jàpp ay kiyam di wax nangam. bi muy dem fii ci Tiwaawoon fekkunu ko fa nangam. waaw ah. Ousmane ñaata ñaata fan lan euh, barakaate buntu këram. bari na Aliou Ngouye Ndiaye yii muy nekk nag Aliou Ngouye Ndiaye tey bu tàmbalee ñu koy def yooyu te Aliou moo doon jàppalu ak yooyu moo nekk commune intérieur tey bu ñu tàmbalee waa APR di ko def bu boobaa fan la koy jooyee. tey na waar ñoom dañoo xamul ne. Hmm. askan wi ñor gi ñor dafa jéggi daal te ñoom ñoo leen ñorloo. Hmm. ñoo leen politique looyu tamit. waaw fi mu toll bari na kuy politique koo xamante ni. politique wul ngir eh, maanaam bilaa Ousmane songo wala dara. Hmm. APR ñoo merloo nit ñi ñu dem tafu ji ci Ousmane Sonko. ok waaw. Hmm. Hmm. bu ma ñëwee ci démission Youssou Ndour avant. sax euh, ñuy tabbu Amadou Ba moom génn na. ci gouvernement bi nan nga jàngate génn Youssou Ndour boobu. ah Youssou de moom wax dëgg yàlla Youssou moom. <laughs> vraiment du politicien. <laughs> Youssou moom ay intérêt lay politigal ay intérêt. ah intérêt wala réew mi. déet réew mi de xañ na ci ah. dëgg dëgg dëgg dëgg de réew mi la waroon a politique ndax lu mu mer réew mi ko koo xam ne li mu doon wax yëpp mooy réew mi ba taxawaloon mouvement ngir jël réew mi hmm. yàlla dogal mënuwul dem mu farrancé wu ci côté bee waaw mënul dem déedéet ah. moom kay xanaa da naa naan am moom Ablaye Wade ay kii yu am est-ce la amal ay problème hmm. dikk tafu si nag mu du dugal ko ci kii bi léegi laa koy wax sax maanaam man comme mouvement <laughs> Youssou Ndour bi ñaari tur yi ban la ci am fekkee ma ci boole wala fekkee ma ci boole <laughs> fekkee ma ci boole wala fekkee ma ci boole. waaw waaw <laughs> su ma ko ñaaree ba tur la ci tur yooyu. tudd ah. waaye lu man a am nag man. Hmm. vraiment moom dinaa ko kii xaj na sax xañ na bu ma waxee daal lu kii ñu ne nangam mais nag man moom yaakaar naa ne dëgg laa gën a faral ci lépp. waaw ah. yuusu nit la koo xamante ni ay calcul boppam la yor. waaw ah. dëgg la nag perte na ci askan wi lu bari fi ko nit ñi séentu woon. waaw euh, perte na ci lu bari moom xam naa ne perte na. waaw yuusu Ndour mu daan def dara ak yuusu ku nekk na ne. Mm. jot réew mi sax mënoon na koo def am nay jamono yoo xam jot réew mi sax mënoon na koo def ndax indil na Sénégal cadeau bu nekk indil na Sénégal waaye bu nekk ubbi na yi tamit ay kii yoo xam ne ay nit ña nga cay liggéey mënoon na koo boole ko ko def ko ci muy dund ak famem yooyu yëpp yu kii la mais nag nit ñi dañuy toll situation yi ñu toll mm-hmm. ku nu séenut nga ne leen massa wala fompal sa rangooñ ñi kooku bàyyi nan la boo ko yëgee boo ko yëgul mm. situation yi ñu toll deux mille vingt et heure bi képp ku nu déggul nga ne massa Ah. wala fompal sa rongoñ wala muñal mhm. yooyu bàyyi na la ndax dégg nga ci Youssou waxu ci dara ah, moom ka lim ci waxoon ci même ah, jamono bi ngay wax moom bi mu génnee Macky moo ñu arrangé la waxoon waaw Youssou kay wax na ne Macky du ma combine bëre ba ci deuxième campagne deuxième kii bi Youssou Ndour la kiyel moom nëbbu ci dara hmm. Youssou la mais nag yooyu yëpp da ngay yëg ne am benn pertement moom ci pertement Macky Sall moom am na ci yoo xamante fi ñu toll hmm. buy dem retraite ñëpp lay yóbbaale xam nga parti bi bu Amadou Ba gagné wul day tas. waaw kan mooy topp ci moom. kenn ku dee topp kenn du ko topp. ñëppay dem day tas. Mm-hmm. même bu gañee ñu bare bare bare bu leen séddu dañuy daal di génn. te gagné gi sax moom loolu lu da wax na ndax lu jom du doon lu jombulu. gagné fii maanaam mën a fexe ba gagné élection yi yi moom ku koy jël da nga wax ak Ousmane Sonko. benn Ousmane Sonko dem. ñàkk a mm-hmm. dem bu demul li tamit. xam nga Ousmane Sonko yaa ngi gis fan yii li ci kii xaw ma loolu question la sax nga bëgg a laaj. wala waaw waaw muy li xew ci stade yeeg yooyu. waaw waaw loolu xam nga danga nga ciy yéemaat bu baax si yàlla suñ borom suñu fan. Hmm. xam nga suñu borom day wax ci alxuraan ne yéen a ngi fexe waaye man maa ngi fexe. waaw ñoom ñu ngi doon fexe pour tëj Ousmane Sonko. waaw tëj nañ ko ci kaso yi waaye tëjunu ko ci xol yi. déedéet tëjunu ko ci stade yi. déedéet fépp foo xamante ni milieu li ñuy wut ñoom. Hmm. mooy nit fu nit ñiy daje muy ca marché baag ca ca ca stade yaag ca yeneen ah. stade nawetaanu ren moom dafa kiimaane sax ba ci match bii sax lu garaaw da cee am match bii nga xam ne ah. Ah. Sénégal la woon ak euh, ban réew ak euh, Algérie Sénégal Algérie xoolal xoolal match bi ni mu dem waaw maanaam kenn wanewu ci xar-xamu Sénégal même étranger bu ñu delloo dem naa Ousmane Sonko Ousmane Sonko une minute de silence ñëpp war a noppi ñu naan libéré Ousmane Sonko libéré waaw <laughs> sëñ bi lu ko gën a garaaw kenn xam na ko Eh, xam nga dañ doon bañ di ko tëj ngir bañ benn activité am songo Sonko mun tëgg ci kaso. waaw ah. stade ba ñaata personne lay jël. ay soixante nangam mille place. soixante nangam ñëpp àndandoo presque di wax Ousmane Sonko libéré Ousmane Sonko. waaw dama ah. mënoon Ousmane Sonko. waaw ah. loolu ñoom xamuñu ne fi ñu benn bi ci des te ñoom dañ caa boole na tas nañ parti waaw léegi ñoom tas nañ parti Ousmane songo léegi seen parti ji des. waaw seen parti ngi tàmbalee tas. bu hmm. Ousmane wax nañ ne tas nañ ko ci wax. Hmm. ñoom nag seen bopp day tas ci dem. ndax mim Touré waxoon naa ne Macky li ko nar daal ah. mooy day gëstu du gis kenn. ah te fi mu toll tàmbaliwul. <laughs> doy na waar Abdoulaye Daouda Diallo nee nañ ko dañ lay def kër mu làng. so sonkorisation bi am na ñuy wax ne. Ah. Euh, mbiru caaxaan la maanaam mbiru xale la. projet Ousmane Sonko bi maanaam dépassé na fu ñu koy fu ñuy nekkee naan ay Sonko na mu naa la xeet yu mel noon ndax ay caaxaan la. maanaam par exemple. foola daal. maanaam procès bi kenn waru koo fooyee. nekk ci stade di naan Sonko namu naa la yooyu am foo lañ ko jàppee. politique moom sëñ bi politique politique daanaka tàcc la ak fooy ak weeree moom moo yore ambiance bi de. Ah amoo dëgg de. nan leen nan leen wax ñoom ñëpp ñu toog kenn toog campagne. waaw ah. ñu toog rek ñu bu heure wote ñu dem wote ji. Ah. yaakaar naa ne ñu bare bari lii lii lii rigéey yi nga xam ne yii tax nit ki foogo ak yii tax mu nàngam. waaw mooy peuple ju lay topp Ousmane Sonko ragale wuñ ko ci Ousmane Sonko nii rek. déedéet lu mu ko ragale woon peuple bi ko doon topp la ko ñaata at lañ ko bëgg a tëj hmm. du woon jëmmi Ousmane Sonko lan wax ne Ousmane Sonko mun nu ko jàpp mun nu koy hmm. waaye peuple bi moo tax woon ci ginnaaw ok ah ba léegi nag jógewun ci ñoom ci songo jógewun ci da di am réew ak politique hmm. escalier la ba ba mu eh, kii escalier la boo da ngay yéeg bi ah. beneen bi da ngaa war a taxaw ba xam xam nga escalier boo gis boo demee ba ci biir amaat na benn kii booy taxawu kay kii nu waaw booy taxaw nga waaw booy tourné booy taxaw foofu dañ laa wax ne la boo sonnee taxawal moom foofu nga noppalu waaw wala ngay yéegaat ci kaw mhm. noppalul bu fekkee na nga fi am koo fi tasel ci courant faw taxawal may ko mu jàll yow bu jàllee ba noppi nga soog a jàll ok foofu nag fi lañ toll ak Ousmane Sonko <laughs> tey bu ma ñëwee ci li nga xam ne moom mooy euh, Karim PDS ñoom war nañ bokk ci élection yi ba léegi six mois Karim Wade mi ngi Qatar euh, jàpp nga ne Karim Wade kuy ñëw la ndax yàgg nañ ñu wax ni dina ñëw dina ñëw mais jàpp nga ne kuy ñëw la ngir bokk ci élection yi. Ah, Karim de moom mën na ñëw ndax parce que man bu ma Macky Sall fii ak yi bu calculé ah. ah. bu ñëwee na Macky Sall moom ñaar la am. mooy ñi muy demal maanaam Amadou gagné élection yi. Ah. bu demee ba Amadou mën koo gañe nag keneen gañe ko waaye Ousmane Sonko gañe ko mu bëgg ko moom. mais mais mais Karim Wade moom euh, wooteel nañ ko loi boo xam ne dina mën a bokk ba xalifa Sall mi mu ci àndaloon moom commencé naa dugg réew mi di wër ñëpp ngi préparé fi mu toll nii ñi ngi def seen i tournée mais moom ba léegi mi ngi Qatar. Ah, xam nga loolu politique lu nekk nag stratégie la am nga teel ñëw gi nii. Ah. am na Sénégalais yi mën naa am bu teel a ñëw diggante mi mën na fee. waaw te politique ku nekk xam na ne moo marché ñoo yem dañuy xëy xëy rek fi ah. dañuy xëy xëy rek euh, jur du waaye du dunu am waaw lépp mën naa benn bi ci saa tamit mooy Karim ba doon ne tey nag wax dëgg yàlla man feek gisuma ko nag wax dëgg yàlla ndax ñi ma ko gënoon a jege ñoo ma ko communiqué ba sonn dana ñëw weer sàngam dana ñëw bis sàngam dana mm. nangam mm. boo doon xool ku mel ni waa ji gay léegi sax génn na fa Babacar Gaye waaw man nga am ñi ma ko boolee ci nit ñi nga xam ne ay waxam lu lu officiel la jàpp ne lu officiel la <laughs> ndax ni mu koy wax waaye moom ñaata yoon nanu fi wax ne Macky Sall Karim Wade dina ñëw ci mois sàngam kenn xamuñu te ñëwut ba jonne tey ñëwut kon ñoom sagam hmm. ñoom ñi la gën a jege mbir mi xamuñu ci lu bari wax yàlla man xaw ma ci bari xam naa hmm. daal bu ñëwee benn occasion am na ko moom ah. occasion la am hmm. mooy bu Ousmane Sonko demul ak même bu Ousmane song demee bokk na ci ñi nga xam ne moom euh, ci première deuxième yeeg yi mën na cee bokk moom Karim Wade waaw moom Karim moo am na occasion boobu am naa bu dee cinq personnes at yi mu def Qatar yëpp nekkut Sénégal xamul réalité bi xamul li fi xew yëpp ñëw rek nekk deuxième wala troisième. bi am na ñaar xam nga wolof yi dañuy wax ne bu doo bàyyi bàyyi dee fii doom ja lay fàttal. Ah. di liggéey na fi lu ko doomam mën a lu ko mën a soutenir ak. te ba léegi Abdoulaye Wade ni mu dese ci xol yi. waaw ah. président Macky Sall mii fi nekk sax dese wut noonu ci xol yi. Hmm. te it beneen bi ci desaat. Ah. mooy xale la. te it ba léegi wax dëgg yàlla xamaluñ ko fi bu dul xaalis bi ñu wax ne jël na ko amaluñ ko fi dara lu ñaaw loo xamante ni def na ko fi nit si nguur ak papaam wala dara moom ko hmm. ay nit a ko war sax waaye moom wax dëgg yàlla ñim hmm. war ñoo ni xam nga ko ak lu mu ah. ba noppi tamit wax dëgg yàlla am na secret bu nu xaw ma loolu sax lu wér la wala déet hmm. am na ñoo naa ma ngay jàng mat la bul foo séy néeg yooyu xam nga murit yi moom am nañ situation ba noo leen di def noo leen ci xëcce <laughs> yooyu yëpp nag xañ na sa passé nan ko waaye nag teewul loolu Euh, Touba moom xam nga ne moom wax dëgg yàlla am na fi hmm. Ablaye Wade na fi lu mu fi liggéey loo xam ne am na mu fi am loo xamante ni wér na jàpp naa ne ko fay doomam ah. waaw waaw fay doomam bu ma bu ñëwee balaa ma dugg ci dëkk bi damay ñëw ci Macky Sall xanaa léegi comme ñu ci bari neewoon nañ troisième mandat bu ko defee na na ko bañ a def ngir mu mën a génn ci euh, grande porte xanaa léegi war naa mën a génn ci grande porte nag. ah grande porte de yàlla xam naa fi mu ci doon génne de moom. waaw. Ah. na ko de. parce ah. que grand porte moom amatul. <laughs> amatul jamono bi. <laughs> déedéet grand porte moom amatul. Hmm. grand porte bi mooy nit ñi xam nga nit ñi ñun ñi ñoo ko faloon. waaw man soxlawu ma xaalis bu ma def sama poos yow ñuy soxla woo ko. mais am na loo soxla ci sa xol. Hmm. am na loo soxla ci sa ci sa dundin. waaw mooy dëkk bi nga dëkk nga fexe ba dëkk boo bëggee dem dem. waaw na nga fexe ñaata yoon nga nit feebar bëgg dem hôpital ñu ne ko ñu ne ko fii doo fi jaar. waaw. Dakar ñaata yoon lañ ko baare ñaata yoon lan tëj kii bi hmm. réseau bii ñu tëjoon site internet yi ñaata yoon loolu lépp lu ci yoonu askan wi waaw askan wi lan lañ def ah ak fan la situation boobu situation boobu ku ko waroon na régler askan wi ku dul président effectivement ñaata nit ñoo fi faatu hmm. te mënoon a bañ a am waaw ah. faatu boobu mënoon na bañ am am xam nga du fi amaat la fi amoon du fi amaat loolu du du xeexu état Hmm. loolu ay xale yu ndaw yuy xeex ñooy wax loolu waaw nag maa bettoon nag ma defoon waaye ba ma ko defaatee waaw <laughs> ñu jóg naa kala wala kala yoon sax mën naa te loolee ñu waxoon lu ko gën a moo amaat te loolu du du loolu échec la sax nga koy wax ok yàlla ndax parce que koo xamante nii lii daa wërta am hmm. ba ngay wax ne du fi amaat far mu amaat fi dafa garaaw lu wërta am hmm. nga fexe ba mu am yow da war a expliquer nit ñi baalu nit ñi waaw ne leen ah lii fi amoon de maa ngi koy jégglu Mm. ñaanuma yàlla mu amaat ah. mais yow yaa ngi préparé pour mu bëgg mu amaat bëgg ne du amaat di nga jekkuwaaj far yàlla natt walla ndax xeex moom yàlla mooy mooy mooy mooy jox ndam ki mu koy jox ah oui koy jox loolu nag bokk na ci yoo xam ne nit ñi jàppal nañ ko ko dëgg la nag moom kenn du wax liggéeyut wax dëgg yàlla ah. du wax liggéeyut mm. amoon na yéene liggéey yu bari euh, président Macky moom bilaab kii nii xañ na doo ko wax lu ci bari nag nit ñi wax nan ne nag li nu liggéeyee kii Cheikh Yérim ñaata la wax ci ci ci kii bi ci ilaa Touba bi. waaw nee na ñoo fi gën a seer ay ay ilaa ay autoroute. waaw ñun liñ def ci autoroute loolu tamit xañ na nit ñi duñ ko bàyyi xel mais liñ ñu fi bàyyil ci bor kenn xamul nu mu toll. ñu liggéey ba pare ñu ne moo gën seer ci Afrique moom. waaw loolu léegi nag loolu nag yooyu yëpp Ousmane Sonko militaire beeg yeneen ak yeneen moo gën a seer ci Afrique. Ousmane Sonko nga waxut ne euh, bitim réew dañ lay financé bu jox xaalis ba noppi ne la ñun ñooy jël suñuy ouvrier suñuy nàngam. waaw pour ñun ñu mën a gañ a dara ak yooyu ñoo lay wax li ngay li ngay defar tam waaye ñoo lay wax it proposé li nga war a defar ah. bu dee forage la wala tëli ñu ne la tëli nga war a defar ah, ah yooyu nag sëñ bi yooyu tamit kenn seetu xanaa xamoo ne kii nu mu tuddati waa ji mm-hmm. Arona Coumba Ndoffène nee na ah. Macky Sall Sénégal yi nekk Sénégal dix-sept ay kii dix-sept millions yi dix-sept millions yi dix-sept ku ci nekk yaakaar naa Macky sàll yoreel na la xaw ma sept cent nangam mille yoo xamante ni ci borom lu mu mu leb ci say ci sa tur yow yow mi fi ñu toll sept cent cinquante mille man mi sept cent xam ne moo ko leb ci suñ tur. waaw ci suñu tur gàddu nga am gàddu nga ko loo xam yow yaa doon ko war a fay. loolu bari la xam loolu du xaalis bu ndaw bari na moom bari na moom million. su ma ma ñëw ci li nga xam ne moom mooy dëkk bi màggal nañ ba pare màggal bi weesu na. waaye bari na ñoo xam ne màggal bi mooy seen pire màggal ci wàllum inondation ci wàllum ñàkk a mën a dem ak dikk ci wàllum paas yu cher. mbedd yu fees ak ndox te ba léegi amul saafara naka nga gisee. xam nga dëkk bi nag li sëñ wax dëkk bi dañ ko jàppoo dëkk barkeelu ak dëkk diine rek. waaw màggal jotee ñu may leen dara defal leen ko. waaw bu événement bu benn sëriñ soxlaa ne nangam. ñu sëkkal defal ko nangam. Mm-hmm. ko woon Dakar. kii la ndar ñu jàppe ab ville la bu war a defar boo xam ay nit a fa ko jàpp woon dëkk barkeelu rek. loolu ah, mën nañu tardeel bari na nu mu tardeel hmm. ñun bu ñu defalee benn kàmb bu ndaw rek ñun ñëpp ñu ciblé hmm. daal ne président li mu fi def te fii li ñu wax ne nangam ñaata milliards lañ wax ne moo ko war a defar deux cent nangam milliards hmm. yoo xamante ni fi ñu toll defagun sax euh, lu dul quarante milliards lañ wax ne def nañ ko fi nangam te ba léegi fenn foo mën a jaar ci dëkk bi maanaam Touba amul symbole bu gën a rëy jumaa ji déedéet benn mbedd boo mën a jógee ci jumaa ji boo xam da ngay daw a jóge fa nga jóge hmm. maanaam un kilomètre wala trois kilomètres boo xam ne doo tegg ndox ci jumaa ji amul am na ci ah. yoo xam ne sa diggante kër sëñ bi laata kër sëñ bi faw mënoo foofu moom sëñ bi xam nga ne foofu mooy ërumu dëkk bi waaw ah léegi nag loolu liy wane loolu nag ñoom ñoom ñëpp seen politique moom état ku nekk xam na politique am politique am hmm. wax nañ ne euh, lu mel ni li ñuy def ci suuf ñoom loolu moom sawarul ci moom waaw waaw loolu moom lu nit ñi du gis sa loo xam moom gisuñu ko loolu la boo xoolee sax ba ci fi ñu toll hmm. maçon bi tabax foos waaw foos bi la gën a sebetal waaw pourtant pour kër gi nit ñi man fee nekk faaw nga tabax benn foos boo xamante ni ak defar mbedd mi mu baax hmm. sëñ daam ku ma waxoon ne ma sëñ dàkk sono loolu da ko wax ne ko hmm. li ngay tabaxal nit di ko defaral li nga ci war a gën a ragal yàlla wala nga gën koo defar na doon ab foos ndax loo xam ne da nga koy def ut ko benn boo xam lu nekk ca biir loolu sa diggante yàlla war nga koo defar defar gu baax defar gu loolu nag ba léegi loolu moo jàpp sénégalais yi hmm. jàppaale état bi état bi nag lu mu jof moom day bëgg saa boo rombee rek waaw gis ko nii ndax yaa ngi dégg gars yi sax dañ koy wax naa boo bañee boo boo bañee Macky Sall kii la jaaral jam ñaajo jaaral nangam jaaral nangam mais li ko def noonu <laughs> mu ne ah? sëñ ci kaw mu <laughs> bokk jaare moom faaw nga ne lii nekk ci suuf hmm. pour ñu dëkk ci suuf faaw ñu defar suuf si noonu la nag dañ ciy def am mbay di ci bay waaw hmm. ah. eh, ndox mi ñuy def fi mu toll di wax ne daa ndox mi fi mu toll borom yeneen réew yi duñu ko sànni waaw ah. am na lu ñu koy exploité hmm. léegi nag bu fekkee réew mu toll ni nag li muy jur fi mu toll day dem ba màggal hmm. gis nga dañuy dem du ko defee ci yeneen dëkk yi waaw ah. am na ñoom dootu ñëw ngay ñëw sa hmm. kër ngi nekk fii yaa ngi dëkk fii dëkk Dakar sa kër nekk yow bala ngaa dem coono bi ngay daj waaw ah. ak mettit bi ngay daj mënoo hmm. dugg sa kër ndox nangu na ko safara ah. léegi fan ngay màggale léegi nag wax dëgg yàlla màggale Tuubaa du dox du jaage nag hmm. eh, du farata noonu bu doon du farata lool dëgg la ah. mooy li waaye boo demee mënoo sart yi war a daje nga màggal si tubaa amoo ko sa kër ngay màggale effectivement yaa xam ña nekk Njaaréem wala ña nekk ndakaar wala ña nekk Nangal léegi nag loolu nag day dem ba biir dëkk bi Mm-hmm. kër kër Sëñ gi ci biir kër gi nee na ma doon nataa ci biir nawet bi ci biir màggal gi taw bi mu taw taana fa ah loolu kon moo waral sax ñu jëlee euh, cérémonie bi defee wuñ ko fa dañ ko ah, yóbbu kër Sëñ Tuubaa loolu nag buñ toll wax ah. moom ah, dëgg la de xañ na ñun li ma ci wax nag mooy Tuubaa gi nag waaw de yàlla doon war a yëg seen bopp xam ne ci Sénégal yi leen bokk waaw ñu jéem a politique jéem a seet ni nit ñi def pour yor réew mi bu dee njàng war na fee am bu dee ab yar war na fi am bu dee mm-hmm. xam-xam war na fi mu dee laaj ko naa ñoom d'accord nañ ni kenn mënta jël réew mi te ñëwoo Touba. Hmm. wax Touba yi nañ fexe ñuy seet candidat bu ñu jéem a yebal mu dem jëli réew mi. réew mi nag ah. koy jël rek yow da ngaa dëkk Touba war a defal Touba Sénégal yëpp nga war a defal. homme politique liñ ci xam moom mooy base base politique. waaw Touba moom dañ fi tere politique bañ nañ ko ba képp kuñ xam nga nekk ci politique bi di ci wax sax. ñoom jàpp nañ la yow moom dèjà génn nañ la ci nit ñu baax ñi parce ñu baax dañu jàpp ne wër na politique ñoom. def xanaa si samedi ni nga ko doon defee xañ na loolu la waa dëkk bi bañ waa Touba bañ ba léegi foofu lañ nekk de sérieux ah ba léegi foofu lañ nekk de ah système bu sérieux de kenn du ci bañ loolu ndax fi ñu toll am na fi ñuy politique ay maara ci politique sax wala ñuy nekk am seen parti wala ñu bokk ci parti liñ leen di wax mooy yem leen ci li leen seen maam jàngal yam leen ci nangam yem leen ci nangam fii lii du seen domaine yooyu daal lañ leen di wax ba léegi ah loolu nag moom niveau bu si tuuti la yem leen li seen maam jàngal ah. li sëñ bi daal sëñ Tuubaa ci waxam moo waxoon ne bu jamono soppi ko hmm. ci loo xamante ni lu neexu lu neex neex yàlla la ah. maanaam soppeeku ci loo xamante ni lu naqari yàlla la soppeeku ah. leen ànd moom maanaam bu jamono soppikoo ci lu naqariwut yàlla hmm. soppeeku leen ngeen ànd ak moom waaw ah. waaye kenn mënut nekk nag ci loo xamante ni sama mbaay ñaata néegi ñaxa nekkoon Touba Touba barabu sëñ bi danaa naa borom baraag bi kañ nga fi gëj a def bari i xagg na jamono wëlbati ko leen wëlbati ko indi ko noonu léegi nag kon dëggam hmm. na ne loolu mooy li war a doxal jamono bu laajee loolu dañ ko war a def waaw ah ñun sax dañ cee war a dolli leneen bu buñ ko defee ba noppi dool dolli ci leneen loo xam ne exemple lay doon waaw exemple la sëñ Tuubaa bi muy tabax jumaay njaareem waaw dafa waxoon taalib yi ne leen ku nekk rek indi ñaar juróom-ñett waaw lu mu leen te tegal da leen wax ne leen li tax ma leen ko dama bëgg ëllëg ngeen sañal seen bopp hmm. ndax ku leen sañal leen te ku leen def loo leen lu ngeen bëggut a def waaw ah. maanaam koo ëmb sa ngalam ëmb sa kii moo tax ma bëgg ngeen ngeen dogule ay tool mm-hmm. te ngeen liggéey mm-hmm. bu ëllëgee lu ngeen bëgg a def ngeen defal ko seen bopp mm-hmm. université bi ku ko defar murid yi ah nin defaree université bi mën na nga defaree dëkk bi wér dëkk bi du du doone étape dama koy defar ci benn semaine wala ci benn un an wala da ngay def li nga tolloon rek ah. suñ Saliou laata jógee waxut woon ñu sotti kii bi dañuy defar ay kii ba fu nekk gisoo woon ay jalee xeer ci dëkk beeg yëpp Ah, waaw waaw booba lii la ci doon junj. Hmm. fekk man na nañu koo defar. Ah. waaw euh, mais yaa ngi wax ci solution nii waa dëkk bi mais tey autorité yi nga xam ne ñoom ñoo war a defar. Hmm. jamono bu nekk xëy na sax màggal euh, moo ñëwoon moo tax ñu taxaw di wax mais pare nañ ci ba dem ci feneen. Hmm. sama benn kii mi ngi may wax naa fi mu boo demaatee teewaawoon fekk leen fa ci seen discours yooyu. mais jàngoro joo xam ne. góom boo xam ne yow nangu woon lii góom la. dégg hmm. nañu Antoine Diome ci conférence euh, ci kii bi cérémonie bi li wax moom mooy dëkk bi daan na taa waaye ren taataa amu fi. Hmm. Euh, mais góom boo xam ne nangu woon ne lii góom la est-ce que manees moom euh, di nga taxaw pour faj ko tamit. waaw hmm. ah, loolu moom avant kii sax la ko waxoon avant cérémonie bi. waaye ci ah. cérémonie bi dikkee moom jàpp naa ne war na <laughs> waroon naa regretter wax jooju ne ah. li waxoon de ndox moom nangam ku ne xam na ne wàllu ndox. loolu moom sëñ bi man sax du ma leen ci bu baax a baax. am na luñ ci war a def am na lii fi xewoon ci nawet bi ne moom. yàlla indi am ndoxam mu bari moo xamante ni kenn mënu koo recevoir. Arabie Saoudi Makka am na fa. na fa ba yàq fa lu bari ca Kaaba gaag ca géej yooyu yëpp. Mm. loolu yàllaa ko def. Mm. Euh, waaye nag teewul nag nit ki awar naa fogaru ba lii bu lu mel nii bu ko dalee lan la koy saafaraa. loolu mu doon ndamoot ak di wax ne nangam mi tamit dëkk bi xam nga politique moom. dafa bokkut ci ngay nax saw askan lu wér gis nga ñun buñ séree woon ci politique mm-hmm. Amadou Ba mële ñu tànn ne ñoom moom lañ tànn dañuy wax ne Amadou Ba de liñ ko tànnee ñett yii la mm-hmm. wala ñu ko tànnee qualité yii la mooy ku jub la ku sawar la ci liggéey mm-hmm. ku yaatu la ku laabir la ku mën a muñalante la ku bëgg lu baax la koo xam nii tamit lii ñu koy jox am na xam-xam bu mu ko yore am na njub bu mu ko yore waaw qualité yooyu bu ñu ko ci tànnee hmm. même ñu doon xëccoo sax bu ñuy xëccoo ñoom ñii ñëpp ñi xëccoo waaw warunoo yàqalante doo waroon ne ah man de wax de yàlla xam naa ne bu dee yor am réew Macky Sall moom ma ko dàq hmm. Ousmane Sonko nangu yu mel noonu yëpp a Macky Sall dàqale hmm. Macky Sall Ousmane Sonko Macky tamit dàqal li ko Ousmane Sonko mais bu ñu dem ci nit ñi rek ñu fal ko Ousmane Sonko mi ñuy falit dëgg la gaa bëgg nañ changement mais leen torop lim nar a yaru diis na de. <laughs> te bokk borom xam-xam yi wax ne bokk na ci booy yanu mbir yanu loo àttan. Hmm. doxe noo man xam fi nga jëm. man maa ngi naan bari na ñoo xam ne ñi ngi jàppale Ousmane Sonko waaye woon ñaari at ci ci ci ci ay yi gën a mag ci la ñuy bokk. bii mu teg moom defar Sénégal moom. xam naa lenn rek la mënoon na réussir. Ah. su falu woon def ne Nelson Mandela def. Ah. toog benn at bàyyi. waaw ah. Sénégal moom mu bëggul lool. Eh. waaye réew mi moom mënu koo defar ci xalaat yi mu wax ak ci at yi mu fi bëgg a toog. waaw ah. mënu ko te te Sénégal moom léegi àgg nañ ci moom deux mandats ko fi am jeexal na comme président Macky Sall wax na ko. Ah. même bu ko waxul woon nit ñi ñoo bëggul ko am deux mandats. ko am trois mandats wér loolu moom nit ñi. xoolal hmm. ba fi mu toll ku am xel sax ab daayira boo ko jiitee ñetti at wala ñaari at yoo boo ko jiitee. seetal keneen nga jox ko ko. loolu maanaam. am benn valeur bu mu la jox. waaw ah. dana la joxi tamit kenn du la yëpp dana la joxit ëllëg boo soxlawaatoon lu mel noonu ñu jox la ko. waaw ah. chef de quartier yi nekk fii yëpp suñ ko ñi fi ñu toll ku ne bu bu fekkoon na ni woote ñëpp ay wàcc fi toll. waaw wér. <laughs> ndax yàgg dañ fa yàgg ak di def ah. yu neex ak yëpp daanaka waa koñ ban dëkkal sax ñoo leen gën a mere. jëriñul leen dara ba nam nekk ci seen kaw ba noppi nekk kii. wér. waaw waaw. bari na fi moom. waaw. sëñ Saliou. Hmm. kontaan nañ ci waxtaan wi dañ lay bàyyi nga tàggatoo rek soo ko defee ñu jeexal. waaw jërëjëf suñu fàll tàggatoo bi de moom mooy xanaa jéggalu rek ndax kàddu yi moom bari na <laughs> yow ma ne kàddu yu nga ci ak yu xam-xam ak yu am yar waaye nag yow moom da ngay sunu rakk di sunu lépp loo xamante ni ñu bokk liggéey bi boo seetee lii xañ na aajo woo nga ko te mm. nga ne boo ko joxee askan wi ñu jël ko mm. loolu rek moo nu fi indi waaye du xam-xam du mën a wax du taar du imposé suñu bopp du dara jàpp ne soxla nga ko rek yow it nga jàpp ne askan wi soxla na ko rek bu ah, jox la ko loolu nga ci yaakaar hmm. ñoom it ñu yaakaar ko askan wi nga jàpp ne yaakaar na yàlla nañ ci gis lu kawe seen jort lu ciy njuumte ñu jégglu ko bu baax a baax a baax di ñaane bii na ci ñëpp euh, concentré baax ndax xale la te it fii nga ko def nii mu nekk ci dëkk bi hmm. euh, bu jëkk dafa jàppoon na Touba mën noo créer si dara ba man gis naa fi koo xam ni muy créer site bi dana na surtout Touba moom du dox oh. waaye léegi ñu ngi yëg ni site yi di hmm. produire yoo xamante ni ñi nekk Touba sax dañ hmm. lay kii ndax parce que ba ci man mii gën a ñàkk fi toll boo xooloon tey waaw sëñ Modou Ass mi nga xam ne moo nekk fi moom ku ne xam ko waaw Cheikh Baara man léegi nit du ma téléphoné wu te ma wax ne ma yéen ñett ñii dama leen déglu macha allah te dégluwul ni dara man bu dee xam-xam yi ñoom sax manoon nañ leen déglu muy seex Baaraak hmm. sëñ Modou ndax ñoom jàng na waaye ko mel ni man mii xam nga bu naa ñu ngi may déglu loolu da ah, li mu lay def nag du la jox dara lu dul nga gën a góorgóorluwaat xam ne réew yi tamit du caaga nag dinaa am nga carte nationalité ah. carte d'identité hmm. ba da yàlla am xalaat ci réew mi te du xalaat bu bon jàpp naa ne ah. war ko war nga koo mën a génn loolu la rek eh, ñu ngi lay ñaan yàlla yokk la di jéggalu eh, ñi nga xam ne ñoo doon seetaan di ñaan hmm. bu baax a baax eh, yàlla defal na jàmm réew mi te élection yi ñu jëmi kii nu mu tuddati maam booy jaaw wax na ko hmm. doon te dëgg la ci moom ñàkk doon dëgg lu amal nit ñu njariñ la nee na nan fexe ba jàmm am ci réew mi ah, loolu moom ñu ngi ciy tàllal ñëpp loxo yàlla na yàlla defal jàmm Mm. élection yi ñu dem ko war a gagné gagné bu boobaa Sénégal jëm kanam salaamaaleykum wa rahmatullah waaw jërëjëf euh, Serigne Saliou euh, di wax amin rek ci ñaan yi nga xam ne def nga ko yow moom wax dëgg yàlla suñu kilifa nga ci mbé ci métier mi euh, royuwaay nga tamit ndax yaa ngi koy teg ci xam-xam donte nanguwoo ko sax yaa ngi koy teg ci xam-xam di ko teg ci gën ngaa rafeti teggin tamit ni ngay waxee ni ngay exprimer yëpp moom daf koy wone li nga wax ci Touba ak waa Touba it mooy li am ndax it li may wax na nouvelle révolution moo moo moo am jamono jii tey mm-hmm. Touba mosuñu des ci ginnaaw ci dara daanaka ñu ko daan woneek ñu ko daawut génnee fi am wala ñu nga xam ne daan nañ xam ba pare bañ a too toog bañ a wax kom mm-hmm. ni nga ko waxee léegi nekk ci biir eh, nit ñi di def politique wala te réew mi ba pare xajaluñ ci waa dëkk bi xajaluñ ci doomu daara yi xajaluñ ci ñi nga xam ne ñoo ci war a wax kidnappé ko loolu nag ci yoonu jeex la jëm te yaakaar naa ne kanam la jëm ñi ngi la ciy sant te it bay nga ci waaru rëy du tay nga ko tàmbalee bari na ñoo xam ne buñ bëggee métier mii bokk nga ci ñi tax ñu bëgg ko loolu moom yàlla def na ko ak ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi ci te nekk ci biir dëkk bi ñi ngi lay sant di la gërëm di sant ñi nga xam ne ñoo doon seetaan di leen gërëm di leen jox dig daje ba beneen yoon ci beneen waxtaan incha allah.